ci daara ne woon ab sénégalais dañuy wax ne dañ ko askane ci Sénégal boo waxee ni ab Saint-Louis Saint la dañuy wax ne dañ koo askane ci Saint-Louis moom nag dañ koo askanale ci lu ñuy wax barbahaar barbahaar mooy lan ñu ne ay garab la ay médicament yoo xam ne ña ngi ko daan jëlee ci réewum Inde di ko jaay si ci réewi arab yi kenn ku nekk xam na ne boroom xam-xam yi boroom xam-xam yi sunna ak boroom xam-xam yi jàngale xadiis ak fiq ak alquran ak lépp la ëpp ci ñoom boo ko dee jàng da ngay fekk ni boroom yi métier lañ tooguñu woon rek di jàngale waaye dañ doon jàngale di liggéey moo tax ñu ci bari dañ leen di askanale ci seen métier kon ñi ne ko albarbahaari ndaxte da doon liggéey ci njaayum garab yoo xam ne Inde lañ ko daan jële muy yoo xam ne day jariñ doomu aadama yi moom nag bi mu juddu ci ñetteelu siècle boobu yi xam ngeen ne jamono yooyu jamonoy xam-xam la boroom xam-xam yi bari lool waaye it dajeeg jamono yoo xam ne biddaa yi tasaaroo na itam ni xam-xamu sunna amee woon noonu la borom biddaa yi tasaaroo woon ñoom it di tasaare seeni biddaa mu bokk ci ñi nga xam ne yàlla may na leen ñu teel a takkook ay boroomi xam-xam yu mag boroomi xam-xam yu mag yoo xam ne ci keppaaru al imaam ahmad ibnu hanbal ci lañ yaroo maanaam moo leen jàngal yar leen doy na rek nga tudd abu bakar al marwazi nga xam ne moo doon taalibeb imaam ahmad bi nga xam ne ci ñi gënoon a taqoog moom ci la bokk al barbahaari ci ñi gën a taqoog al marwazi ci la bokkoon bokk na ci ay sëriñam itam sahl ibn abdullahi tasturi abu bakar al marwazi mi ngi faatu 275 at tasturi mi ngi faatu 283 al barbahaari dund naag abu daawud sijistaani ñoo bokk jamono moom boroom sunan abi daawud dund naag ibnu maaja dund naag ibnu qutayba ad-daynawari doy na rek nga xam ne kon xam-xam ci jamonoy xam-xam la doon dund ak boroomi xam-xam mook abu daawuda dund nañ lu yàgg donte abu daawuda day toog palaasu sëriñam la ko waral mooy abu daawud dafa jànge direct ci imaam ahmad ibnu hanbal te al barbahari gise wut ak imaam ahmad ibnu hanbal waaye ay taalubeem la giseel kon abu daawud jamonoonte naa ak moom waaye du moroomam nag ci tolluwaay ci ay at al barbahari dafa siiwe woon ne waxkatub dëgg la ñu wax ne kaana qawaalan bil xaq mboolem ñi ko tarjamal ñépp baat boobu yi wax nañ ko waxkatub dëgg la woon dolli nañ ci ñoom ñépp ne daayatan ilal asar daf daan woote ci topp mboorum asalafu saalix muy la ñu nekkoon dolli nañ ci ñoom ñépp ne laa yaxaafu fillahi lawmata laa'im bu mbir mu aju ci diine yàlla ji taxawee du séentu naan su ma waxee lii danañ ma yedd wala su ma defee lii danañ ma yedd la ko war rekk da koy def la mu war a wax da koy wax luy xew-xew wa kaana shadida al inkaari ala ahli lbidaci wal ahwa ku taroon ku taroon la ci kanam waa biddaa loolu ñépp xamoon nañ ko ci moom shadid al mubayanati lahum taqalikoog ñoom taqalikoo gu wér goo xam ne amut sikki sàkka saaxiba siitin inda sultaan ñi waxtaan ci ak dundam ñépp itam nee nañ ko amoon place la ca ña jiite maanaam walliyu amril muslimin ñi nga xam ne ñoom yàlla teg mbirum àtte jullit yi ku amoon place fa ñoom la ku amoon kàddu fa ñoom la maanaam respecté woon nañ ko teg ko palaasam moom it mu teg leen palaasam ànd ak loolu teewul dafa siiwoon lool ci dëddu àdduna ku dëddu àdduna la woon waaye dañoo wax ne mooy dëddu koo xam ne ñàkkuta fàggu lu jëm ci àdduna ndax boroom alal la woon waaye alalam jooju da ko tegoon ci loxoom ci loxo bi lay am ñu ne amma xubbullahi wa rasulihi wa itaau lxaq wa ilaau lxaqi fa fi qalbihi alal ji ci loxo bi la ko tegoon waaye bëgg yàllaa ko yonentam ak yëkkati kàddu dëgg yooyu moom ci xol bi la ko defoon kon nit ki kenn waxul ne doo fàggoo alal borom métier la woon di liggéey boole koog di tasaare xam-xam waaye teewul nag la diine laaj mu taxaw taxawaay bu mel noonee alal ja mu teg ko ci loxoom ndax man cee def lu baax ndax alal kat ci yi ñi mën a fàggoo àjjana ci la bokk moom itam waaye yàqalu ko dara nag ci diineem alal ju yàq diine wala muy wàññi ak jaamu yàlla mooy musiba wala alal juñ fàggoo nu lewut loolu mooy musiba ci borom. waaye alal ju lew joo xam ne boroom mi ngi koy def fa mu ko war a def loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tëgg na ko lool sax nag kon noonu la defe woon ci wàllu alalam moo tax dañuy wax ne waajuram wu góor bi mu génnee àdduna ndono la matoon na soixante-dix mille dirham ci jamono yooyu kenn ku ne xam na ne loolu xaalis bu bari la waaye dañ ne loolu lépp moom daf ne nañ ko jéggal soxlawu ci dara ñi ne la ko waral mooy am na xeeti lënt yoo xam ne nekk na ca fag na góor ga doon fàggoo moom mu seetlu loola dëgg la mënu ci woon dara waaye xelam dalu ca woon lënt nag la ñu wax waaye waxuñu lu xaraam waaye lënt moomee la muy doon doon lu woye fa nit ña moom lu diis la fi moom ba tax na daf ne alal jooju daal nañ ko jox fuqaraa yi wala miskin yi wala ñu delloo ko baytul maal waaye man soxla mu ci dara loolu am na lu muy wone am na benn qissa boo xam ne ñi koy taarixal ñépp muy ñuy wax ci biographie am dañ koo nettali xam ngeen ne menn at nit ñi dañoo aj ba toll fii ñu toll rek nii nit ñi nekk Makka doon mbooloo yu bare bari am ab kuréel bu bon bu ñuy tudde alqaramita ñu jékki-jékki attaqué Makka attaqué Kaaba ga dal ci kaw nit ñi rey leen fab seeni alal sàcc alxajarul aswad njaaxum yoo xam ne kenn xamul nu mu toll loola fekk fa albarbahaari bi mu gisee nit ñi ak seenu ñàkk ak seenu jaaxle daf na leen yaa qawm man kaana yaxtaaju ila muaawanati miati alfi dinaar wa miati alfi dinaar wa miati alfi dinaar xamsa marat aawantuhu yéen ñii ñu jël seeni alal wax leen ku ci aajo woo ndimmal danaa ko dimbali doonte mat na cinq cent mille dinaar loolu alal la joo xam ne kenn xamul nu mu toll ndax daa yor alal jooju moom ci poosam wala da ko def ci mbuus indaale ko wala déedéet ab taalibeem ibnu batta al okbari ci taalibey al barbahari la bokk kenn ku nekk xam na ne imaam boobu ñépp xam nañ taxawaayam ci sunna nee na albarbahari li tax mu wax loolu mooy su ko bëggoon a dajale mën na koo dajale fa saasa ci nit ñi loolu li muy wone mooy place bu kawe aku kóolute goo xam ne doomu aadama yi wóolu nañ ko ba su ne nañ dajale nangam danañ ko dajale ci jataay bi loolu nag ñi nettali xissa bi ñépp dañoo bëgg a fésal palaasam fan la toll woon fan la toll woon ci nit ñi ba nga xam ne fu mu leen ñot di jëme fa danañ ko fekk si ca loola loolu nag dëgg la imaam bu mag la loolu yi mu wax it ab taxawaay la boo xam ne niñ ko waxe rek noonu la demee waaye nag liñ ciy ragal ci waxin yu mel noonu mooy nit ki jamono yi mu koy wax am yëggum yëg boppam ne moom mii kuñ jéggal la yëggum yëg boppam ne nit ñi su ma ne leen def leen nangam danañ ko def xam kuy dem bay wax ne cinq cent mille dinars ku ko bëgg mën naa ko ko dajaleel waxin la woo xam ne mënoon naa waxe neneen ku aajo woon dimbal rek ñu dimbali la ndax léeg-léeg ci boroom xam-xam ak imaam ak koo xam ne mbooloo mi wër na ko ak coow leeg yu mel noonu bu yeexee côté yooyu la ko seytaane di jaare ba am ay roq yu sew yoo xam ne ab nattu mën na caa juddoo ab nattu mën na caa juddoo toroxlu ñu bari buñ koy wax woyefal sa bopp lañ koy tuddee waaye ki naan damay toroxlu di woyefal sama bopp kooku sax daa yëg ne dafa diis maanaam doonal ki nga doon yow yow doomu aadama doonal ki nga doon bul nangoo doon keneen li ngay yëg ci ci sa bopp yow ci ay xeeti doyadi ak i xeeti suufe ak xeeti ak ndoom aadama soo ko dee fàttaliku sa xel du nekk ci naan damay woyefal sama bopp waaye damay damay wax nit ñi ki ma doon loolu lay doon bu boobaa loolu nag seytaane day bëri nit ki ba yu mel noonu léeg-léeg daf koy daf koy réer bokk na ci lii wone palaasam ci fa mu dëkkoon ca Baxdaad mooy imaam bu mag ñi ko wax ibnu arafa mu siiwe woon ne nafta wayhi lañ ko daan tudde imaam bu mag a mag bi mu faatoo ci atum 323 ñépp daje boroom alal yeeg boroom xam-xam yeeg nguur geeg ñépp dajaloo ñu war koo jullee ñépp dañoo dëppoo ne ana al barbahaari ñu ne mi ngi nii ñu ne kaay jiite nee ñu jiite googee ba mu ca jógee daf ca teggee gën a dolliku mbooloo gën a dolliku mbooloo kàddoom ñépp gën koo dégg àndandoom yi gën a tasaaroo ci dëkk ba gën a mën a xeex biddaa di yëkkati seen kàddu ca xeex gañ koy xeex ndax nëbbutootuñ am nañ doole léegi seen imaam feeñ na ibnu kathir rahimahullah ci albidaaya wa nihaaya li ma doon wax léegi ci wàllu ak siiw akuk bari mbooloo ne léeg-léeg mu indil nit ki fitna ibnu kathir nee na albarbahaari dafa nekk ci jotaayam nii tisli bi mu tisoolee ñépp ne yarhamukallah kàddu yooyu xumb ñu sës ca jàkka ja muy waa marché ba yëkkati seeni kàddu dëkk bépp baxdaad gépp yëkkati seen kàddu riir ma dem ba àgg ca pale ba daarul xilaafa xalifa bi dégg dojja coow li mu ne lii lu mu doon ñu ne ko al barbahari day moo tesooli ah nee na fastahwalaha nee na loola tiitloo ko nag tàmbalee tiit nag ci waa ji loolu mooy bidaayatu sababi mihnatihi nattu bi nga xam ne moom la ko yàlla teg ci loolu yi la tàmbalee bi nga xamee ne mubtadia yi muy ahlul ahwa nga xam ne ñoo nekk ci bidaa te ñoom jamono yu nekk seen itte mooy xeex sunna ak waa sunna biñ gisee occasion bu mel noonu dañoo daal di tàmbali nag di jege nguur gi di wax ak ñoom nag waxoon nañ leen ko kii fam jëm nangam ak nangam di leen tiitloo di leen tiitloo ba atum 321 ci gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xilaaf ak ku ñuy wax alqaahiru billah ak benn premier ministre bu mag bu ñuy wax ibnu muqla ñoom ñaar ñoo àndandoo génne lenn ndigal ne nañ jàpp albarbahari bi mu yëgee loolu mu nëbbu am na ñuy nettali bay nettali ca nëbbu googee ay xarbaax ak ay yëf yoo xam ne dañ la dañoo jekki-jekki xamatuñ fu mu nekk te kenn mënu koo gis waaye li mën a xew daal nëbbu na ala kulli xaal moo xam daal nëbbu wala leneen a ko nëbbu ñi daal di tàmbali nag jàpp ay àndandoom ña ca gënoon a fés gën caa siiw ñi di leen jàpp benn benn dajale leen ñoom ñépp génne leen Baxdaad yóbbu leen Basra tëj leen foofa waaye sun borom tabaraka wa taala bokk na ci ay turam al muntaqim maanaam day fayantool ay awliyaa um yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nettali na ne yàlla nee na man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb sama wàlli yu mooy koo xam ne dafa jël boppam jox ma ko jébbalu ci man léppam di man maay tax muy def maay tax muy bàyyi li ma ko sant ma nga ca la ma ko tere bàyyi na ko nee na kooku ku jóg dal ci kaw man ngay bëreel diir bu gàtt ci même at mi juyoo gu mag dox diggante buur bi muy alqaahir ak ministre am boobu di ibnu muqla juyoo gu metti buur bi génne mandat dare ne nañ jàpp ibnu muqla mu daw mu ne nañ taal këram ñu taal këram ibnu muqla kenn gisatu ko foofu la teggee ci tarjama yépp kenn waxaatul fa mujj diir bu gàtt matulum at alqaahir ci atum 322 alqaahir ci boppam doon roi bi ñuy coup d'état ko coup d'état bu metti yemuñu ci daaneel ko waaye dañoo luqi ay bëtam ba noppi nangu nguur ga ci diir bu gàtte noonu ki ko daaneel ñëw di benn xalifa bu ñu wax arraadi yi naka mu toog waa biddaay yi ñëw ci keppaar ga tàmbaleeti loo mën a def day na nga wattandiku moom albarbahaar yi ndax nangam ak nangam wax a wax a wax mu daal di digle ne képp koo xam ne ci àndandooy albarbahaar yi nga bokk tere nañ leen ñaari nit ñi bokk benn jataay di fa toog ñoom maanaam tasaare leen ñoom ñëpp loolu lañ ci jublu lu tax mooy mbooloo mu bari ma lañ ragal nguur dafa ragal mbooloo bi loolu amee albarbahaari réeraat réer ci atum deux cent trois cent vingt deux ak at yi ca tegu kenn gisu ko lu dul ñu néew ñoo xam ne ñoo xam fa mu nekk di ko fa fekk yàlla dogal mu dund ba ci trois cent vingt neuf maanaam teg na ay at yu xaw a takku ci gannaaw bu xalifa boobee faatoo mu door a génn àdduna ci ruqam boobee nga xam ne fa la nekkoon fekk mi ngi am ci ay at luy toll ci soixante-dix-sept ans daanaka yu manqué ay weer rahmatullahi alayhi rahmatan waasia kooku mooy al imam al barbahari ay àndandoom nag yépp àndandooy niti sunna lañ ci la leen yar niti bañ biddaa lañ ci la leen yar nit yi bëgg alquran ak sunna ak topp ko loolu rek ci la leen yar ci la leen masa masa yar moo tax nee nañ dafa am benn bés am waa ju génn ci marché bi koo xam ne rek ci nit ñi la rek nit ñi taxawaal waaye nag pas pas ba ma ngi ko jëlee ci arbar baxaar yi léeg-léeg loolu am léeg-léeg nit ki di déglu pas-pas di ko jàng ba xam ko mu nekk ci xol bi nga xam ne tawxiit moo ca nekk ak sunna waaye nag yarut cëriya ba mën a bàyyi mooy yàlla yi waaja daa am ko dajeeg moom ca marché ba mu màndi mu ne gaayaa ngi de xanaa bi lay àndandooy al imaamul barbahari jamono yooyu loolu lañ leen di wax xanaa bi lay ñu ngi nii nii lañ mel kookee màndi woon wëlbatiku ne ko waaw xanaa bi lay ñetti xaaj lañ ñenn ñi jaamu yàlla muy julli ak woor yooyu ci lañ sax benn xaaj bi ay boroomi xam-xam lañ yoo xam ne dañuy jàngal nit ñi benn bi ci des nag li ñuy liggéeye mooy toroxal saay-saay si dox ci mbedd mi daal di yëkkati am talaata mu metti teg ko ko mu daanu mu duma ko ne ko benn xaaj bi lii la ñuy def loolu ci biir école al imaamul barbahari la jóge kooku dañoo wax ne ci mu xaalifoon yi la bokkoon maanaam ci ahlul bidaa wal ahwa waajoo ji mu duma ci la bokkoon jamono yu nekk yu mel noonu day day faral di am kon loolu mooy boroom xam-xam bi rahmatullahi alayhi rahmatan waasia téeréem bii nag muy charxu sunna lil barbahaari téere bu màgg la ci téere usoolu diin ci la bokk téere yi nga xam ne ñi jàng xam-xamu pastéef muy wàllu pas-pas dañ koy jàng dañuy jàng téere boobu boroom xam-xam yet fonk ko lool li ko sara ci boroomi xam-xam man xaw ma nu mu toll rawatina ci jamono jii nu nekk boroom xam-xam yu bare bare bare ñii sara nañ ko ci xalima ñii jàngale nañ ko ñii ëpp téere la ba daal boo xam ne moom barkeel na lañ mën a wax waaye boo xoolee da ngay gis ne téere yu bari taalif nañ ko ci jamono jooju wala yu jege ak moom te xëy na bii li ko boroom xam-xam yi jox amaana joxuñu ko téere yu bari ci jamono jooju téere yi salafu saalix yi nga xam ne dañ leen a bind ci alquroonu salaasa muy seekal yu jëkk yi ñett yi ba ci ñeent yi jëm ci ab xaaj ci juróom yi téere yu bari la lool sax nag yu ci bari dafa yor ab chaîne maanaam sal silsila muy ab isnaat boo xam ne la ca nekk ci xam-xam lépp mënees na koo jàng ba xam la ca wér ak la ca wérul téere bi boroom daf koo def mu nekk muxtasar bu gàtt indiwu ci ay asaanit yu bari maanaam defalu ko ay silsila yu bari waaye xam-xam ba nekk ca téere yi silsila yee moo ci nekk li tax boroom xam-xam yi nag jox ko itte jàpp naa ne bokk na ci yi may bëgg a tudd bi ci jëkk li kaw ni mu allifihi ahad al aimmatil mutaqaddimin ki ko bind daa bokk ca mag ñu jëkk ña ni ma ko waxe ci commencement bi xam nga ku dund ñeent fukki at ci ñetteelu siècle bi ñooñu ñooy mag ña ñoo ñi ñooy mag ñu jëkk ña néew na nga mën a am ab téere bu mat sëkk tey boo xam ne dañ ko bind ci aqida boroom dund ñeent fukki at ci ñetteelu siècle bi néew na nga mën koo am am na nag waaye néew na ñaareel ba mooy téere bi daf cee tontu ñi gënoon a lëjle ci waa biddaa feeñal seeni lënt ya lënt yépp mu tontu ko loolu ci li ko tax boroom xam-xam yi bëgg ko ci la bokk ñetteel ba mooy albarbahaar yi ci ni muy ni muy waxe ci masala ak image bi mu lay jox ci waa biddaa ak ni mu leen di tontoo boo ko dee jàng ak jamono joo mën a nekk ci gannaawam day mel ni jamono ja ngay dund lay waxal sàllaaw da nga ci romb ay masala yoo xam ne ba wëttuwul da nga ne lii moom kii firi ki téere bi rek moo ko wax waaye ku doon dund ca troisième siècle mënta toog fii di wax loo xam ne nun ñii moom la ñuy dund fekk yëf ya daa nuroo rek ñeenteel ba mooy shumuliyatul kitaab li mu'zami al usul allati buniya alayha manhaju salaf téere bi daa xaw a matale mboolem pilier yi nga xam ne manhaju salaf ci la tegu loolu ci li ko amal solo ci la bokk su ma la joxee rek bunt yi nga xam ne mooy bunti téere bi wala mabaaxis yi nga xam ne mooy mabaaxisu téere bi bim tàmbalee moo di ne lislaam day mooy sunna loolu la tàmbale ñaareel ba mu wax lu jëm ci sunu borom tabaraka wa taala ak i melokaanam ñetteel ba mu wax ci gëm mbugalum bàmmeel gëm munkar ak nakiir gëm déegu yonente ba sallallahu alayhi wa sallam gëm ashafaa muy ak tinu gëm assiraat loolu ca buntum ñetteel ba buntum ñeenteel ba mu ne ñi gën ci ñen ñooy ñi gën ci wii xeet gannaaw boo xamee ne yonent ba génn na àdduna sallallahu alayhi wa sallam kon ma nga jëm ca saxaaba ya juróomeelu bunt ba ma ngay wax ca alxajj wal ghazw maa al imaam wal xuruj alayhi lu aju ci nag xaqi ki nekk al imaam al imaam buñ ko waxee mooy waliyul amr ka jiite wàllu àdduna ak diine muy wax aj ànd ak moom ak su wooteeb xeex ñu jóg ànd ak moom xeex ak lan mooy àtteeb al xuruj ala waliyul amr lan mooy àtteeb ñu génn ne fi yori ngànnaay ne nañ ko wàcc loolu mooy al xuruj juróom-benneel ba wax na ci as-sawm wa salaat fi safar koor ak julli ci tukki amaana foofu kii déglu mën na ne mën na ne ah kii kat moom daa mel ne kon ci fiq lay bëgg a wax waaye fekk bépp bunt bu mu la indil bu nekk da la cay indil ay taxawaay yoo xam ne waa biddaa nda ko waa ahlu sunna gise gise wuñ ko noonu juróom-ñaareel ba ma ngay wax ci al iman bi samiyat gëm xabaar bi nga xam ne daa jóge ci yàllaa ko yonentam su fekkee ne xabaar bu wér la juróom-ñetteel ba al fikratu fi llahi tabaraka wa taala xalaat ci lu jëm ci yàlla xalaat yooyu lan lay jariñ ak lan mooy ay frontière am yoo xam ne fa la war a yam juróom-ñeenteel ba laa yadxulul jannata ahadun illa bi rahmatillah kenn du dugg àjjana lu dul ci yërmande yàlla yooyu yépp dana ko leeral fukkeel ba gëm al isra wal miraaj muy gat rañaan gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu rañaanoon ba fa ko sunu borom tabaraka wa taala àggale ca asamaan ya mu teg ca wa arwaaxu shuhada ak ruuxi ñi nga xam ne dañoo faatu fi sabilillahi ñooñu fan la nekk wa axwaalul mayiti fi qabrihi ki faatu ba nekk ci bàmmeelam ci lum nekk fukkeel ba ak benn alcharru walxayru bi qadaaillahi wa qadarihi muy lu baax wala muy lu neex wala lu naqari nee na lépp ci dogalu sunu borom tabaraka wa taala lay jóge fukkeel ba ak ñaar awalu man yanduru ila allahi fi ljanna ñan ñooy jëkk a gis seen boroom ca àjjana fukkeel ba ak ñett allahu tabaraka wa taala atlaa nabiyahu ala ma yakunu fi ummatihi ila yawmi alqiyama boroom bi tabaraka wa taala xamal na ab yonentam lépp loo xam ne xeetam wii danañ dajeeg moom ba kero yomal xiyaam di ñëw la ci am ci ay juuyoog ay xuloog ay xeex ak ay fitna ak yépp yàlla xamal na ko ab yonentam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fukkeel baak ñeent mu ne man qaala lafdi bil qurani maxluuq wa halaakul jahmiya nee na ko wax ne sama baat ci alxuraan dañ koo bind lan moo di bàtteem wa halaakul jahmiya leeral itam lu aju ci jahmiya ak seen alkande ak lu leen alak fukkeel ba ak juróom mu wax ci usulul bidaa bidaa yi am ci biir lislaam fan lay balle luy seen cosaan fukkeel ba ak juróom benn alxawfu min allah ragal sunu borom tabaraka wa taala mooy lan ak lu muy jëriñ fukkeel ba ak juróom-ñaar man taraka salaat aljumuati waljamaati fi lmasjid at teb ku bàyyi jullik ajjuma ak jullik mbooloo ca jàkka ja fukkeel ba ak juróom-ñett arrajulu yaqulu fulaanun mushabbih lan mooy at teb kuy wax nit naan kii mushabbih la maanaam dafay nuróole yàlla ak i bindeefam fukkeel ba ak juróom-ñeent al istiqaamatu ala al xaqi wa tariqu ahli sunna jub ak sax ci dëgg ak lan mooy yoonu ahlu sunna ca foofa ñaar fukkeel ba العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة fukk yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seedeel na leen àjjana kon ñaar fukki tomba ngoog yoo xam ne mooy yi gën a fés ci loo xam ne al imaamul barbahaari ci lay wax ci téereem bi kon te noo ngi ci kanam imaam boo xam ne imaam bu màgg la ci aimatu ahli sunna wal jamaa waaye noo ngi tiimit ab téere boo xam ne ci téere xam-xam yi gën a xóot ci wàllu xam-xam ci la bokk ànd ak loolu ànd ak imaam ji ni mu màggee ak nii mu xamee madhabu salaf téewut risalaam bi am na ay wax yu ci nekk yoo xam ne boroom xam-xam yi ànduñu ci ak moom dëppoowul it ak madhabu salaf am na ci am na it ay benn benn xadis yi ci ñëw yoo xam ne yu wérut la mu andi ko ci ànd ak ne imaam la ci xadis loolu lépp lim lay jox mooy aba allahu an yaslama kitaabun xayru kitaabi yàlla dafa narut am ab téere bu mën a mucc lu dul téereem bi téere boo xam ne mëne su ca nemmat lenn su amaatoon day mel ne alxuraan kon loolu yàlla nanguwu ko moo tax loo xarañ xarañ ak loo muus muus boo dee bind wala ngay wax yow doomu aadama sa imaama fu mu mën a àgg sa xam-xam lu mu xóot xóot loo xarañ xarañ loo mën a seetlu seetlu boo noppee ci li nga doon bind waxuma nit ñi sax waaye yow boo del siwaatee rek da nga gis loo xam ne da nga ne waaw man lii nan laa ko waxe kon yàlla nanguwul ab téere mujj ci njuumte lu dul téereem bi lu dul loolu rek am na lu ca nekk loo xam ne luñ mën a luñ mën a xebet la wala luñ mën a nemmet wala luñ mën a beqi kon loolu mooy al imaamul barbahaari loolu mooy ab téeréem insha allahu fas nañu yéene jublu ci jéem ko leeral ci jataay yi ñëw ci kanam jataay bi ñëw mubasharatan dañuy tàmbali ci téere bi parce que yéene sara sara boo xam ne dañuy bàyyi xel li nga xam ne al imaamul barbahaari moom la moom la gën a bàyyi xel bëgguñu ko def sara yu gudd yoo xam ne ñenn ñi dañ koy faral di def ci sara yenn téere yi la nit ñi jàngoon ba xam ko bu yàgg nga ñëw di ca taxawaat lu yàgg al islaam nga taxaw jàngale al islaam mooy lan nangam nga jàngal yooyu yooyu duñ ci taxaw ay taxawaay yoo xam ne yu gudd la ndax nit ñi xam nañ ko waaye yamata xam rek ci la ñuy taxaw ndaxte lee téere bi bañ a jël aw waxtu woo xam ne bu yàgg loolu lay doon ginnaaw ñetteelu talaata ak ñaareelu talaata ak ñetteel ba lañ koy jàng loolu xaw naa xaw naa néew ci weer ba tax na surut loolu rek saraab bi mën naa yàgg loolu une heure de temps lañ koy jox ci jotaay bu nekk tàmbale dix-huit heures ba dix-neuf heures wala ba lu ngeen ko gisee su ko defee wala ñu àgg timis lu ci nekk mën naa nekk incha allah foofu lay am non soo amee ay laaj rawatina yu aju ci lii ñu doon wax ni ñu mën cee jaar incha allah yaakaar naa comme que duggaguñ ci masaayil xam-xam yi xam naa moo tax xëy na bunti laaj yi ubbikoo lu baax a baax ndax tarjame nit ki ak téere bi seetal kenn rek nga jox faddal suuf
salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
aleykum salaam wa rahmatullah waaw Cheikhana dañ doon sàkku ci waa jooju dajewoon ak waa ji ca mbedd ma nekk kuréelu salaf ñett lañ ñiy jàng xam di jàngale moom mu boole boppam ca baneen ba daal di jëflanteeg moom nam jëflanteeg moom foofu daal soxlawoon nañ ci ak gën a leeral balaa ñun ndaw ñee jóg jàpp ne loolu aw yoon la wuñu war di doxee
jazakallahu xayran maanaam kooka du royukaay li ñu tudde al awaam maanaam aamatu naas ñi nga xam ne ñoo nekk ci mbedd mi loolu laa tàmbalee ci wax ñi nekk ci mbedd mi nga xam ne duñ woroome xam-xam seeni wax mën naa bañ a doon waxi xam-xam waxi mbedd mi la ñoom ci seen jëm bopp seen jikko nekkagul jikko boroomi xam-xam waaye jikko mbedd mi la ba tey doonte fas nañ nag ci sunna ak ci pas-pas loo xam ne boole na leen ci ahlu sunna loolu jamono yu nekk day am jamono yu nekk ñu mel noonu ñu ngi fi ñoo xam ne jànguñu xam-xam soriwuñ ca bëgg nañ sunna nag waaye it nag tënk seeni cër nag ba nekk ci siraatul mustaqim jafe na leen ñooñu nag seeni wax moom boo gisee ñu di ko nettali rek dañuy wane ne ànd ak nit ka lam doon sàggan lépp lam doon sàggan lépp téewul yëg-yëgu pas-pas bi mi ngi ci moom bi mu dajee koo xam ne nekkul ci sunna ci biddaa la nekk bëgg leen a saboote daf ko daal di yar fi saa si donte nag jëfin woowu nekkul jëfin wu tànn ci jamono yu nekk koo gis te àndoog moom pas-pas nga daal di dal ci kawam déedéet yëf ya kat du noonu waaye rek dalay won lenn ci yooyu maa ngi xam nit koo xam ne ab sénégalais la nekkoon Italie koo xam ne kenn mësu koo xam ci luy nuru diine wala dara julli sax fonk ko waaye la ko jëlee Italie mooy ab tubaaba wax ba saaga yonent bi mu dóor ko ba bañ ya dañ ñu tëj ko kaso ba génne ko delloosi ko ci réew mi xam nga yëg-yëgu pas-pas boobu léeg-léeg day nelaw ci biir nit nga xam ne moom sax mën naa bañ a yëg ne looloo nga fa waaye bés bu ñu ko yëgalee yëngalee ci lay yëgee ne ndekete lu mel noonu kat mi ngi fi woon ñi nga xam ne yàlla def na pas-pasub lislaam ci seeni xol imaan nekk ci seen biiri xol ak luñ sàggan sàggan ci bitti am na lu des ca biir loo xam ne ñoo leen wóotale ak ñi weddi yàlla loolu yi nag léeg-léeg mu fudd feeñ su fekkee dañ koo yëngal noonu rekk la waaye jëf jooju ànd ak ne ñii tarjamaal góor gi ñi ngi koy tudd maanaam taxul jubluwuñ ne loolu roy royuwaay la ba boo génnee ko bokkalut loo nekk rek dóoral déedéet du loolu du loolu naam
salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
salaam wa rahmatullah ñu ngi ñaanal seex bi yàlla na ko yàlla sàmm dëgëral ko defal ko gudd fan ak wér ba mu mën a eggali téere bi ak yeneeni téere ñu nit yàlla defal ñu fekke tamit waaw man benn laaj rek laa amoon seex bi mooy maanaam nit ki nga xamante ne mustawaam yeggul ci mën a lire arabe te mu am téere bi te mënta lire arabe ba comprendre lan la téere bi di wax ndax mën naa jot jariñu ci téere bi ci jotaay yi nga xamante ne dañ koy jàngale ndax mën naa jariñu ci téere bi laaj la bu am solo de waaye jàpp naa ne lu bari ci ñu mel ñoo xam ne loolu daloon na leen ku leen tegoon fii ñu tontu ci am na nit ñu baree bari ñoo xam ne ñoom ñoo waxal seen bopp ci ne déglu guñ déglu saraab muqaddimatu risala ibnu abi zeydin alqayrawaani ñenn ñi ne charxu sunna min kitaab assunan li abi daawud ñoo waxal seen bopp ne déglu lool yi ci kàllaama giñ nàmp ci la leen yàlla leerale mbirum diine kon boo gisee ñi koy saraa di ko tekki ci sunu làkk nun mooy nit ki yorut ab téere yorut lenn waaye day déglu mu déglu ba lii leer ci moom mu xam ne lii kat ndekete nii la mu daal di dolli ko xam-xam te xam-xam bul defee mukk ne mooy faaw luñ bind ci téere la nit ki jàng ko làkk ko ci arab tekki ko ci làkk aw làkkam mu door a doon xam-xam déedéet xam-xam mooy li jaar ci benn jaaruwaay ci yi doom aadama am di dugg ci ab xolam mu di ko xam yooyu bokk na ci nopp nopp ci jaaruwaay yi nga xam ne xam-xam da cay jaar di dugg ci xol boroom di ko xam di ko wattu ci la bokk saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain dañ lay wax ne quatre-vingts pour cent ci saxaaba yi nekk ñu woon di bind kon yoruñu woon ay téere di jàng waaw fu ñu jëlee xam-xam bu bari boobu xanaa toog di déglu ko tedd ka muy wax ñi mokkal ci lañ jëlee xam-xam déglu bii day mënees na ci laa xabaare na ab yonentam lii xew ci xeet wi ba kero yowmal qiyaam di ñëw mu ne lu tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xabaarul saxaaba yi xew-xewi fitna yi nga xam ne ñoo doon xew gannaawam lu mel ne guerre boobee ñuy wax aljamal wala safiin boo jàngee kitaabul fitan muy téere bi nga xam ne mooy wax wala bunt bi wax ci fitna ci saxiixul buxaari wala lu mel ne moom da nga gis xadis yu bare bare bari yoo xam ne axaadisul fitan la ko boroom xam-xam yi tudde axaadisul fitan mooy xadis yi nga xam ne ci la moo lay wax ci fitna yi ñëw ci gannaaw yonent bi ak ci axiru zamaan ak ci axiru zamaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fitan yi yépp da ko nettali xudayfat ibnul yamaan da ko ko nettali mu nekkoon koo xam ne moo koy dencal sekkareem kon boo demee ci saxiixul buxaari wala téere bu demee ne moom wala téere yi nga xam ne dañuy bind ci alfitan da nga gis ne fitna yi doon am gannaawam wax na ci fitna yi ñëw ci axiru zaman wax na ci waxin woo xam ne boo ko jàngee yow xool li ngay dund tey da ngay tiit sax nag waaw du ci am yoo xam da nga ciy teg sa bët na mu ko waxe woon kon oxu kay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci lu baree baree bari fitnatul masiixu dajjaal ak bàyyiwul dara lenn lu ci nekk wax na wax na dem ba wax masiixu dajjaal na muy mel ak bu génnee fitna ja fa muy àgg ak ña koy topp ñan la bàyyiwul dara ci yooyu yooyu lenn la ci li ko boroomam tabaraka wa taala xamal mu xamal ko xeet wi waaye nekkul farata nag ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne lépp lu mu xam da koy xamle loolu moom nañ ko xam am na ab yonent yu muy xam yoo xam ne kenn digalu ko mu jàllale ko ndax bokkul ci risaala bi loola kenn du wax ne lu tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàng na waaye fitan yi moom bokkul ca loola naam
salaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum cheikh bi ñu ngi leen di ziar bu baax di la ñaanal borom subhaanahu wa taala mu dëgëral la di wax ni namoon nan gataay yàlla na yàlla yokk taxawaay bi waaye dañuy soxla nag ay irsaadaat si li nga wax si mbokk boobu noonu nga xam ni aqidat ahlu sunna day nekk si moom léeg-léeg dafa ay mbokk yoo xam ni aqida bi day nekk si ñoom waaye léeg-léeg dañuy def ay irtikaab yenn maasi yi rawat na zunubul xalawaat dañuy bañ munkar yi buñ ko gisee feneen dañ siy bëgg di àddu léeg-léeg di si jot li mais day mel day am ay was-was yu nekk seen i biir sudur naan leen xanaa yaa def lii démb ba pare nga bëgg a tere lii ñooñu loo leen di digal ak yenn saa ban mën a loolu daal lan soxla ay irsaadaat waaw doomu aadama day moom dafa doon koo xam ne doomu aadama la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kullu bni aadama xataa wa xayrul xataaina tawaabuun doomu aadama yépp dañuy juum ñi gën ci juumkat yi nag mooy ñoo xam ne suñ juumee tuub delluwaat seen borom waaye njuumte moom mënta ñàkk borom pas-pas bu wér baag kay góorgóorlu ci sunna kay ñépp dañuy am ay rëcc-rëcc waaye soo rëccee nag gaaw delluwaat ci sa boroom loolu la sharia abud bokk na ci loolu yi pexe seytaane mooy loolu yi nga wax mooy yow ginnaaw ci sa jëm bopp am nga yoo dese bay juum li ma lu tax ngay digle lu baax ak di tere lu bon te xam ne yaa ngi koy def loolu was-wasa la ndax digle lu baax ak tere lu bon ci biir jaamu yàlla yi ci la bokk mi ngi mel ni rek mu naa la lu tax ngay julli ginnaaw yow da ngay def nangam lu tax ngay woor ginnaaw da ngay def nangam loolu pexem seytaane la pour génne la ci ak jaamu yàlla génne la ci ak jaamu yàlla waaye bul ko nangu boo sàgganee it del digle ak ñàkk sàggan te boo sàgganee ngay gaaw di tuub di dellu ci ndigalul sa borom tabaraka wa taala di jéem a bàyyi ay tereem ca nam gën a gaawe naam asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu.
salaam wa rahmatullah waaw Cheikh na yal na yàlla sàmm ñu sàmm la amin ya rab yal na yàlla guddal fan wi.
wa te nga yàgg iyaakum di jàngale.
amin ya rab Euh, laaj bi may laaj mooy li nga wax léegi ne sharaxa bi da nga si jaar jaar bu xaw a gaaw ndax téere bi day gudd. ba doon sàkku ci yow nag euh, ñi lay déglu bari nañu te seen niveau yemul. te ñooñu tamit boo jaaree si jaar bu gaaw. amaan nañu war a mën a comprendre duñ ko comprendre noonu. ah kenn ci man sama niveau ak tullaab yi yemuñu. kon nag man dama doon sàkku ah, nga jaar si jaar bi nga ko doon jaaree rek. bu ko dee mu Li- nekk aw jàngin bu bees.
li li weesoo gun dégg nga ko li nu weesu nii dégg nga ko bu baax wala gaaw na ba ëpp
waaw jàng naa ko dégg naa ko bu baax.
dégg nga ko bu baax waaw li ci des incha allah noonu lay mel jërëjëf
incha allah jazakumullahu xayran.
du nekk gaawaayu tari rek daal di dem ni jeexal naa téere ba loolu taxunoo jóg waaye li ñu tax a jóg mooy nit ñi xam li ñuy wax waaye li ñu bëgg a wax nag mooy duñ mel ne koo xam ne day ñëw taxaw ci benn baat wax ci lu mat benn page jàll ci benn baat waxaat ci beneen page comme ni ko ñenn ñiy sara di defe waaye dañoo bëgg nit ñi dégg téere bi xam li ci nekk yóbbaale ko incha allah
asalaamaaleykum wa rahmatulah salaam wa rahmatullah sëñ bi jazakallah xayran iyaakum yal na yàlla fay yow mais dañoo bëggoon xam borom téere bii nii moom ndax ndax dafa nekkoon si benn mazhab comme mazahib bi li nga xamee rek ak bu mu bu mu si tënku woon ak tam lan moo tax ahlu sunna wal jamaa li ëpp si ñoom ñu ñu leen di askanale ngir imaam ahmad ibnu xanbal jazakallah xayran
waaw kon mel na ne xam nga mazhab bi mu nekkoon ndax bu fekkee dégg nga li ñu wax ci ne àndandoo mi ñi nga xam ne mooy ay cheikham yi ko jàngal comme Abu Bakar al Marwazi ñooñu mooy ki gënoon a jege imaam Ahmad ibnu Hanbal kon lam jàngee ci imaam Ahmad ibnu Hanbal loolu la ko jàngal al imaam Ahmad ibnu Hanbal dafa siiwee ne mooy imaamu ahli sunnati wal jamaa tur woowu jékkiwuñ jékki rek ay nit ñu fanatique jékki-jékki tudde ko ko waaye dafa dund ci jamono joo xam ne sunna daf ko jaraloon loo xam ne bari wut kum ko jaral sonn ci it coono boo xam ne bari wut ku ko sonn ba noppi dëgër ca nag dëgërin woo xam ne téewul mu sàmmoonteeg njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci métti métti yépp nag ak lu métti métti imaam ahmad ibnu hanbal dafa dajeeg genn nguur goo xam ne al mu'tazila lañ leen tudde al mu'tazila daanaka sooy bo nga ne rek li nekk ci alquran lépp ci turi yàlla ak i melokaanam dañ ko weddi yor seenum xel jiital ko ci diine ne bépp texte boo xam ne daa wuuteeg xel texte boobee nañ ko teg feneen te jël xel mi looloo doon seenum ngir loolooy seenum ngir moom lañ doon dund moom lañ doon encouragé ci wàllu xam-xam suñ yemoon ca loola mu baaxut waaye mooy tane waaye nag dañ ne par force boroom xam-xami sunna yi ñépp dañuy ñëw fas lii nu fas bépp boroom xam-xam buñ yëg ne yaa ngi toog fi béréb di jàngale al asmaa wa sifaat niñ ko xame ci alquran ak sunna dañ lay jël si yóbbu kaso tëj la di la dóor ba keroog ngay wax ne bàyyi naa loolu delsi naa ci li al mu'tazila nekk ñi door laa bàyyi nga am jàmm boroom xam-xam yu mag yoo xam ne yaa ngi dégg seenu tur tey jaar nañ ca yooya ñu ne leen neel alxuraan dañ koo bind du melokaanu yàlla ñenn ñi wax lañ leen waxloo ñu bàyyi leen ñu dem ñeneen ñi ci des seet waxin woo xam ne buñ ko waxee danañ defe ne loola lañ wax fekk leneen lañ ci jublu waaye ngir bëgg a mucc rek al imaam ahmad ibnu hanbal nag def li ñuy wax sumuut muy dëgër lànk ne leen mukk xalaatuma ko lu yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngale loolu laa gëm te moom laay dund ba keroog may faatu nu leen neex sooy boo ngeen def ma ko ñu yaakaar ne day caaxaan lu nekk def nañ ko ko ki nga xam ne moom lañ biñ ko tëjee moom lañ doon wax bis bu set ne ko téeméeri yar yi nga koy dóor bul ko yërëm kooka dafa dem ba mu yàgg moom ci jëmmi boppam mu di ko laaye biir naan ko imaam man fi mu nekk dóor naa ba mënatuma dóor sama loxo yi lépp a ngi metti sa yaram wi lépp deret la fii ngi new yi fii ngi def nangam fii ngi mel nangam xanaa yàlla kay kuñ forcé am na lum la kii lum la may mu ne ko déedéet ne ko mbir mi yemut ci man ndax ñi koy déglu dafa bari su dellu woon gannaaw bu génnee ñi ci gannaawam ñëpp mën nañoo dellu gannaaw te fasul yéene loolu mu ne ko man fasuma yéene doomu aadama réer yoonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam te fekk ci man lañ ko jële biñ demee ci loolu ba xam ne mën luñ ko dara nag te mbir maa ngi bëgg a ëpp ñi ko doon bugal ñëpp ñenn ñi faatu nañ ci des yàlla alag leen xeeti alagin yu doy waar sax mujj ñi génne ko kaso bi tere ko nag mu jàngale wala mu xutba wala mu def lenn loo xam ne nit ñi dañ koy dégg mu génn toog këram li ne ci gannaawam ci mbooloo kenn xamul nu mu toll li lay won sabaat ci li ñu tudde almanhaj ki nga xam ne lor nañ la lor ju mel noonu nga xam dangaa jóg di jàngale téere bi yàlla beeg sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam benn buur ñëw boo xam ne wóor na la ne ci benn bis boo xëyoon ne mbooloo mi jóg leen suñ jógee danañ ko wàcce mbooloo mu bari ñëw fekk ko foofu ne ko imaam dañoo bëgg nga dellu ci jàkka ji jàngale par force nun mbooloo lan te mate nan ko mën nañ laa aar mën nañoo def lépp lu mu laaj lu mu leen tontu mooy addima addima ne leen fasuma yéenee dajeeg sama boroom fekk am na genn doxuk deret gu tàbbi ci suuf ngir défendar sama jëmm loolu mooy fiq xam na ne su génnoon rahimahullah ànd ak mbooloo moom ñu ne par force day jàngale ji nguur jóg moom it ak dooleem ñi jaamaarloo ci mbedd yi la muy jur mooy deret ju tuuru deret ju tuuru pour lan pour ne dañoo bëgg a delloo Ahmad ibnu Hanbal ci jàkkaam muy jàngale mu ne leen mukk bu leen ko def lii moo jox al imam Ahmad ibnu Hanbal ñi ne mooy imaamu ahli sunnati wal jamaa tënku goo xam ne lu metti metti ak lu mu aju aju ci maslaham boppam ak défendre jëmmam loolu du tax mukk mu ne gaa yi jóg leen parce que man mii dama ajoo ku ma aar su ko waxoon dana daaneel nguur du taxaw waaye lay tuuru ci deretit nag kenn doxam nu muy toll foofu mooy séparer diggante manhaju salaf nag ak beneen manhaj bu mu mën a doon loolu yi lu mat a bàyyi xel la ci al imam ahmad ibn hanbal boo gisee ñu baree baree bari ci ñoo xam ne dañoo tënku ci manhaj boobu ñu di wax ne xanaa bi lay ñoo ci ñoo ci tënku dañ cee siiwe noonu waaye nag teewul imaam yi ci des yépp muy imaam abu hanifa ak al imam malik ak al imam shafi ñoom ñëpp ci manhaj bi lañ nekkoon ñoom ñëpp ci lañ nekk boo demee ci ngir mu ci nekkit da nga fa fekk ay imaam yu mag yoo xam ne manhaju ahlu sunna wal jamaa bii ñuy wax ci lañ doon jàngale muy ay malik yoon yéeg shafi yoon yéeg ahnaaf yi ñooñu ñëpp ñoo al imam ahmad ibnu hanbal ñoo bokkoon aw yoon woo xam ne ca lañ jaar waaye kii nag dañ koo nattu nattu bu metti te ñëlee nattu yu àgg foofu nag amuñu ko loolu moo indi tur wi yëkkatiku nag ba kawe ndax borom bi tabaraka wa taala léeg-léeg bu bëggee yëkkati aw tur moo xam fu mu koy jaarale ba yëkkati ko noonu la ko def rahmatullahi alayhim ajmain
asalaamaaleykum wa rahmatullah salaam wa rahmatullah ñu ngi ñaanal cheikh bi yàlla na yàlla fay ko yiw doon li barkeel dund gi barkeel xam-xam bi te barkeel jotaay bi amin ya rab dama dégg sànq ci sa wax ci biir ci cheikh bi ma dégg ci sa wax ne dars bi li ñu prévoiroon li ñu jàppoon mooy une heure de temps lay durer waaye it bu fekkee mbooloo mi da dëppoo nañ ci ñu yokk une heure de temps yi dem ba timis tamit loolu war na mën a nekk man loolu damay sàkku daal ne bu fekkee mën nañ ko tëralee noonu ndax dama jàpp ne ñàkkul ne am na ci sunu biir ñu nga xam ne xëy na yéeg nañ yéex nañoo jug ci gëstu xam-xam ci pas-pas bii ak manhaj bi nga xam ne moom la ñu ci la ñu bëgg a dund te xëy na darsu yu mel nii bu yàggee lool xëy na seeni jéego mën na yéex te mën na bañ a dëppook utinu xam-xam di boole ay téere boole bii boole bii boole bii ñuy bàyyi xel ñu mel noonu xëy na une heure de temps yi dama jàpp ne mën na xaw a gàtt tuuti jërëjëf yàlla na yàlla fay.
jërëjëf jazakumullahu xeyran daanaka loolu day moom lii tax léeg-léeg ñuy xalaate noonu sax mooy dañoo nekk ci jamono joo xam ne nit ñi jàngiinu xam-xam dafa dem ba xaw a sooxe ñi ci bari tey ci ay téléphone la ñuy jànge buñ ubbee xool gis benn conférence wala ab dars wala yu mel noonu ñu xool gis ne lii une heure quarante cinq la wala deux heures de temps dañu daal di ubaat dem seeti loo xam ne cinq minutes la wala dix minutes bu baree ba bari su fekkee nit ñi foofa lañ toll nag te li ñuy wax dañoo bëgg nit ñi di ko déglu di ko xam di ko jàng loola day daal di xaw a am tuuti njàqare ci lu gudd li ba ëpp loolu mooy indi xalaat bu mel noonu léeg-léeg waaye nag teewut am na nag ay sàkkukate xam-xam yoo xam ne yu dëgër lañ yoo xam ne buñ gisee lu mel noonu ñi ngi koy jël di ko jàng nag ci seeni waxtu gis ku nekk ci liggéeyam jël écouteur am def ci noppam di liggéey di déglu gis kuy dawal otoom taal otoom di déglu tukki bu sori muy déglu loo xam ne ñaari waxtu la ba ci ñetti waxtu boo ko seetloo lu bari ci conférence yi dañoo wàññi léegi seeni seeni seeni temps diir yi ñu daan conférence boo demee ca conférence yu jëkk ya Cheikh Ibrahima Khalil gaa yi da nga doon ñeenti waxtu nga toog di wax nga ne boo noppee kaset yu bari lay doon ñu teg ko fi muy benn conférence te nit ñi yooyu dañ ko daan njëkkante di ko déglu ci jamono yooyu loolu nag dem na ba ndaw ñi léegi réseaux sociaux yeeg yëf yëfaan yi yu mel noonu wàññi na yitte yi donte liñ koy jox ci temps nag bari na téléphone bi li ñuy xëy di ko jox ci temps bari na lool te li ca doon luy am njariñ nag bariwut bariwut moo tax troogoon temps yooyu nga def ko ci ab dars boo xam ne borom jàngale na ko ci ñaari waxtu nga déglu ko ba mu jeex nga dellu ci sab liggéey loolu moo ëpp njariñ te wóor na ma ne ñaari waxtu yooyu moom da nga ko def ci téléphone bi waaw am na ñoo xam ne nelawatuñ guddi ndax téléphone am ñoo xam ne dem na ba daa mel ne dorog ci ñoom xam nga ne kuy lekk di tibb di tegaat ci ci ci ci feneen bokkut ak loo waroon a jëm ci gémmiñ gi nga di ko tàbbal ci leneen ndax téléphone booy xool maanaam dorog la léegi yàlla na nu yàlla musal naam kii dafa ne ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lim ne seytaane munta jël jëmmam di ko wan nit ki ci gént kon ku gis yonent bi moom nga gis daf ne loolu ndax moom dong la wala mboolem yonent yi la ah li ñu xam de mooy moom moom daal wóor nañu ne moom noonu la yonent yi ci des nag amuñu texte bu ñuy wax ci ñoom dara kon foofu xamaloon leen dara ci wet googu la ñuy wax ndax seytaane mën naa indi seen jëm wala mënu ko indi allahu alam waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom xam nañ ne képp ku ko gént gis ca melokaanam ya nañ ko melale ci téere yi mu dikk mel noona xamal ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga gis loolu nag lu mat a bàyyi xel la ndax léeg-léeg nit ki gis lu mën a doon ñi daal ne lii lan la ci biir gént gi ñu ne ko yonent bee mu xëy ne gis naa yonent bi boroom xam-xam yi dañ la daan laaj ki nga gis nu mu mel nga ne daa sol yére yu weex ñu ne la ah nu yére ya mel nga ne daa gudd bay buubu ñu ne déet kooka du moom daa kaalawu kaala gu jekk ñu ne la ak lan nga ne daa yor kurus ñu ne déedéet du moom gisoo ko kon noonu lañ koy toppee ca melokaan yee ba mu sotti nga xam ne kii nga gis mooy que téere chamail ya doon melal nam mel ñu door ne ah kon yow wax dëgg yàlla ki nga gis ci sa gént gi moom mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye kii ku mu ñu ne mooma rek loolu doyut il faut mu yor melokaan moomu joxal kenn salaam waaw
asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu salaam wa rahmatullah cheikh bi ginnaaw bi ñu lay ñaanalee yàlla tawfiq ñaanal ko mbokk yi dañoo doon laajte ci toogaay bi nga xamante ni moom la ñuy wax tawarruk ñu jàngoon ko ci kitaabu sola nga waxoon ni mi ngi ñëw ci ñaareelu taaya ci julli ñuy laajte ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam toogaay bi ñuy wax iftiraash ndax daf ko daawoon di toog ci ñaareelu taaya ndax dañuy gis lu bari ci mbokk yi ñoo xamante ni si biir julli noonu la ñuy toogee
waaw bu dee ci toogaay bu jëkk toogaay bu jëkk ci ak julli iftiraash lay def iftiraash mooy lem tànku càmmoñ bi toog ci tawarruk nag mooy ci suuf lay teg njekkikaayam ñaari tànkam génn ca wetuk ndeyjoor ga loola la ñuy def ci ñaari taaya du caa génne kuy bëgg a sëlmal ku ne koy def waaye ci ñaareelu taaya ci lañ koy defee bi maanaa kuy julli suba yaa ngi toog di taaya waaye iftiraash nga sañ a def waaye sañoo def tawarruk kiy julli timis wala gee wala tisbaar wala takkusaan nga xam ne julli gi am na yaari taaya kooku moo am iftiraash am tawarruk leer na waaw kii def ne dañoo gis lenn ci ay texte yoo xam ne dañuy gis yenn jëf yoo xam ne ay mooy yàlla la ñu ne ku ko def day sax ci sawara te fekk kooka du yéefar fekk du ab yéefar loola dëgg la am na ay texte yoo xam ne day def lu mel noonu waaye ni ko boroom xam-xam yi firee mooy jëf ji mu jëf yeyoona payug sawara suñ ko ko fayoon suñ ko ko fayoon payug sawara la waaye bépp àtte boo gis bu ne day am ay mawaane maanaam la waroon a am am na leneen lu ñëw teekoo teekoo am imaan bi mu yor su fekkee bu wér la imaan boobu moo dox digganteem ak sax ci sawara waaye su fekkoon ne mawaane yooyu amu fa muy luy tee mu am day sax ci sawara kon la nga ciy jële rek mooy bakkaar bi rëy na ba war naa mën a saxal doom aadama ci sawara waaye nag am na leneen lu ñëw musal ko ba saxut ci sawara mën na caa tàbbi waaye mën naa génnaat mën na caa bañ a tàbbi sax nag su fekkee dem na ba yooyee di far bàkkaar far na bàkkaaram ndax dañuy déggee ci ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla xamal na ko lii xew ci kanam ci ay fitna mu ne ndax dañ ciy déggee ne lépp luy xew ci àdduna rek kon yonent bi alayhi salaatu wa salaam xam na ko ah déedéet kon mu am li ñu tuddee ilmul gayb te yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekkul woon ku peeg xam-xamub alxayb dafa xamoon rek yi ko yàlla xamal waaye lii xew ci aw xeetam nag ci ay fitna loolu yàlla xamal na ko loolu la wax waaye waxul ne lépp luy daw ci kaw nu bi de kullu maa yajri fil kawn déedéet yonent bi alayhi salaatu wasalaam xamu ko ci dundam sax am na yu doon xew ci jamonoom te xamu ko jëlal rek qissatul ifk aïcha radiallahu taala anha biñ ko tuumaalee tuuma ju ñaaw jooji yi te du dëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ca commencement ba su xamoon ne du dëgg rek kon jeex na waaye da ko gëm mere ko ba yebal ko sax mu dellu kër baayam ba alxuraan wàcc nag door ko xamal ne kii ku set wecc la kat mu door a xam ne kon ku set wecc la boo ko toppee ci siiroon nabi sallallahu alayhi wa sallam da ngay gis ni yooyu yu baree baree bari la yoo xam ne xew na yoo xam ne alayhi salaatu wasalaam su doon ko xam lépp taxawaay bi du taxawe nii day toog xaar ba boroomam jox ko ndigal ne ko lii nii la mu door koo def waaye su ko waxul du ko xam suratul kahf ñi ñëwoon di ko laaj ay laaj yu compliqué mu leen dem leen bu subaa ngeen ñëw ma tontu leen fàtte wax insha allah ñooña dellusiwaat yàlla joxu ko xam-xam lañ doon laaj mu am ca jaaxle lool nag am ca jaaxle lool ba ak fu nekk mu taxaw fa di jéer di yéeg ci kaw montagne yi di xalaat kañ la wax yu wàcc pour mu mën a tontu ñii ndax jox na leen rendez-vous ba ñëw ba pare te comme masa dig dara boo dikkee du la wor nan lay def borom bi seetlu ko ca ba mu sonn nag mu door a wàcce ci loolu nag wala taqulanna li shay'in inni faailu dalika gadan illa an insha allah bul waxati mukk ne lii danaa ko def te boole woo ci insha allah kooku yarub borom bi tabaraka wa taala la ab yar bu muy yar ab yonentam di ko jubbanti mu ngoog al imaam abul xasan al ashari day wax ni ñenn ñi dañuy wax ne moom moo fonde madhabu ahli sunna wal jamaa déedéet al imaam abul xasan al ashari jaar na ci li ñu tuddee al i'tizaal nekk na ci mbirum al mu'tazila diir boo xam ne mat na ñeent fukki at jamono ya muy nekk ca ngirum al mu'tazila fekk na ahlu sunna ñu ngi bind ay téere sunna ci jamono yooya kon doonut koo xam ne moo ko fondé te sax ngirum ahlu sunna wal jamaa kenn fondé wu ko yàlla ci boppam moo ko wàcce ci ab yonentam waaye kenn du ñëw fii naan ma diw sàngam moo fondé asalafi wala moo fondé yoonu ahlu sunna wal jamaa ak seen manhaj déedéet loolu diine la ju yàlla wàcc ci ab yonentam yonent ba jàngal ko ay saxaabaam saxaaba yi jàngal ko ñeneen ñooñu jàngal ko ñeneen ba mu agsi ci noonu noonu la bindoo waaye nekkul ab kuréel boo xam ne dañ ko créé ñu ne diw sanga mooy seen imam moo créé lii moo ci woote moo ko sos nanga noo déedéet amul kii day laaj daal mooy tàqale diggante woote kat ak waaraate kat ak borom xam-xamu fiq yooyu moom amut lu leen tàqale maanaam woote kat bi ci boppam war nay waare war nay jàngale fiq yooyu dañoo war a ànd tàqale yu wërta tàqali ko mooy indi lu mel noonu maanaam jëmm ju taxaw ñu ne kii ab waaraate kat képp la amut leneen lu muy def déedéet loolu amut aw ŋàññi sax lay doon maanaam boo demee ci téere yi ñi ñuy tudde alwaaz mooy ñi nga xam dañuy dañu di ràbb ay xisas yoo xam ne tàmbalewul fenn yemut fenn ñoo ko xalaatal seen bopp di ko wax nit ñi muy neex ñii di daanu ñii di kii fekk la ñuy wax dara amu ci kon wax su kese du xam-xam faw nga nekk boroom xam-xamu diine door a jóg di waaraate faw nga nekk boroom xam-xamu diine door a jóg di daawa kon addaai wal waais wal faqi yooyu yëpp dañu war a ànd yu kayit moom xeebu na yi waaw kii de moom ne daa bëgg rek ñu fàttali ko jataay yooyu ñu doon wax jàngale woon nañ ko de ci anam goo xam ne moom pratique la woon dama xamut mbokk yi yore woon caméra yaag yëf yaag yu mel noonu ndax wàcce nañ ko ci vidéo yi wala déet waaye ñàkkul kenn ci mbokk yi ku ñu mën a woon al iftirash mooy lan ak al tawarruk mooy lan waaw moom de xëy aat la wax waxut adab tayib nañ def lii ba pare wax loolu ndax bu dee lii baax na bu dee loola it baax na jataayu iftiraash nga xam ne moom la ñuy def ci taay ju jëkk mooy mooy nim tooge nii waaw bu dee tawarruk mu ngoog noonu imaam Omar def moo leen di tàqale benn bi da ngay toog carrément ci suuf bu dee nag bu fekkee laaj bi daa jëm ci leneen ndax dafa am dafa jamtalu këyit wi tuuti na laaj bi jamtalu na këyit bi moom gis ngeen ko nii bu fekkee ne dafa bëgg a laaj teggiini jataay ci sàkku xam-xam kenn ku nekk xam na toog yi nu teggiin ka toog tàllali tànkam toogul toog yi nu teggin ki toog wane gannaaw toogul toog yi nu teggin kon la jaadu mooy ñay xamlu dañuy jàkkaarloo kay xamle noonu la xalaqaatu boroom xam-xam yi noonu la daan mel ñëpp mu di leen gis ñëpp di ko gis ñu toog toogin woo xam ne day ànd akuk dal amul yëngatu amul baj-baj amul geesu bu bari amul jóg wuyu ci téléphone amul toog fa nga toog di ko wuyu amul tàllali tànk amul yëkkati ay tànk ci kaw kon benn nga ferenkalaay wala nga sukk mooy toogin wu baax la léeg-léeg nag nga def dara ba mu yàgg say tànk di metti nga wëlbati def la ca des loolu dara nekku ci al imam malik rahmatullahi alayhi dañuy wax ne ab ab jataayam moo nekkoon jataay bi gën a dal ci jataay yi boroom xam-xam yi ay taalubeem dañuy wax ne suñ masaan toog day mel ne ay picc ñoo dal ci seen bopp ñuy bañ ñu naaw xam nga picc bu dalee ci sa bopp moom boo yëngoo rek mu naaw mais noonu la daan mel lu tax mooy ku yëngu mu génn la ku yëngu mu génn la danaan la fu ñuy waxe wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ko mënta déglu yaru génnal foofa ndax da ngay wut si tuyaa ba bëgg a yóbbaale bàkkaar loolu duma ko fekke noonu la daan jëf léegi taalibeem moo tax ci jataayam niñ koy melale dañ ne kuñ mës a séen ngay yëngu ci biir jataay bi dañu xam ne kee gan la xamagut lu xew li nga xam ne kooku gan la kon nag yar boobu yi ab yar rek la boo xam ne ñoom bu ñu daan jàngale ay boroomi xam-xam yu mag ñooy toog ci seeni jataay di leen déglu di riwaaye di jële ci ñoom yar ba ñu yor ñu di leen ko jàngalaat ci jataayu imaam ahmad ibnu hanbal ci tarjamaam dañuy wax ne lu mat juróomi junni daanañ toog ci jataay bi léeg-léeg cinq mille personnes waaye ñooñu boo leen seetloo juróomi téeméer yi képp ñoo ñëw di sàkku si xam-xam waaye ñeenti junni ak juróomi téeméer dañoo ñëw di sàkku si ay teggiin maanaam nan la boroom xam-xam war a mel moo tax dañuy wax ne kaana yajlisu bayna yadayhi xamsatu alaaf imaama imaama buñ ko waxee doonuñu ay ndongo yu ndaw ndawaan maanaam juróomi junni kaala mooy boroomi xam-xam yoo xam dañoo jàng ba kaalaw ndax kat kaalaw ca yooyu jamono la muy firi mooy day àgg am foo àgg door a sañ a kaalaw waaye du ko jóg rek daal di jël sa kaala def ci sa bopp li ma ko fi loolu la daan firi moo tax ñuy wax ne juróomi junni kaala dañ daan toog ci kanamam juróomi téeméer yi képp ñooy sàkku xam-xam di dolliku waaye ña ca des ñépp dañoo ñëw li taallumi adabihi wa samtihi ngir jàng tegginam melokaanam ak dalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain kon ba yowma sulasa insha allah iyakum
78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western Union dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam membre yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sippooram ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullah umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir Sénégal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bi nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawe liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture am ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matériel am saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi buntu yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membram ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western Union dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam membre yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sipooram ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullah umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir Sénégal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bi nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawe liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture am ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matériel am saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi buntu yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membre am ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western Union. dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam.